الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 studio bi nga xam ne mu ngi nekk fii Kine Massa Sawaneen ñu tuddee nga xam ne ab studio la boo xam ne day liggéey lépp lu waay wàllu photo ak caméra ak lépp loo xam ne wàllu maanaam traduire la wala nga xam ne da ngay jëlee ci CD yóbbu ci vidéo wala vidéo yóbbu ci CD noo ngi fi ñëw pour war a ànd ak yéen traduire benn film ci film islam yi mi tudd Hassan al Hayat Ba'dal Mawt Hassan wal Hayat Ba'dal Mawt benn kaset la boo xam ne kaset la bu am solo. waaye li ñu poussé ba ñu ko traduire ci olof mooy ñi nga xam ne ñoom dégguñu arab dañoo sant lool lool lool lool lool sàkku ci ñun pour ñu jëm koo jëlee ci arab bi yóbbu ko ndonte ci olof la ñoom ñu mën koo jëriñoo ndaxte sa CD bi CD bu gis la traduire nañ ko ci olof am na ñu ko traduire ci français am na ñu ko traduire ci sarax bi am na ñu ko traduire ci pulaar kon ñun tam ci kàttan yàlla ñu dimbale ko yàlla subhanahu wa taala parce que na traduire ko ci olof ngir ñu mën ci jëriñ seede bi nag moom comme ni ñu ko gisee ci léegi ci kanam jar na toog jël sa temps seetaan ko képp koo xam ne loo mën na jàpp ci àdduna ci xale yu góor wala bu jigéen jar na li jël sa temps toog seetaan seede bi ndax da ci jàngee loo xam ne dana la jàngal ëllëg noo war a góorgóorlu ci sa wàllu diine wala ci sa wàllu àdduna kon doomu ndey loola tax dañu ñëw fii war a am lenn lu ñu traduire ci kaset bi maanaam ci olof bañ mën ci jëriñ ñu koy mottale incha allah nekk beneen waaye bu ñu kàttanu yàlla kon duñu def dara la ma ñu taxaw di ànd ak yéen ci film xastaan incha allahu ñu ngi ko def nag képp ko xam ne bëgg nga jox ko ak ñun ci numéro téléphone yi ñuy jox la ba neex nga jox ko ci ñun man mii di ko traduire su neex nga jox de man 642 26 60 642 26 60 maa ngi tudd Ousmane Diouf mais ñu gën a bëri Oustaz Diouf wala studio bi ñu ko defee fi ñu waxoon ne léegi muy liggéey soo ci bëggee am lu gën a leer mën ngaa jox ko boromam muy Cheikh Ba ci 553 54 44 553 54 44 soo ci jokkoo moom rek loo ci gën a bëgg loo ci bëgg mu gën a leer rek incha allah dana la ko leer la te itam nekk na loo lool kon li ñu def dara loo ñu ànd ak yéen dugg ci xastaan kàddu gi nag kon loolu mooy imaasu asan bi nga xam ne moom lañu war a seetaan léegi ci kàttanu yàlla noo ñaan ci yàlla subhanahu wa mu def ci ñun dégg ak topp def ko ci yéen film bi comme dañu ko junjee léegi léegi ki ngeen dégg noonu muy wax mooy pàppam moom day ñaan fu mu toll di woy kii mooy pàpp Asan ku baax la moom jaamukatu yàlla la waaye asan comme ni nga ko xamee rek daa mel ni suñu xale yi góor yi rek mi ngi noonu papa ma ngoog di woy moom loolu rek mooy métier waaye loolu li li lii mooy li ñuy gis heure bu nekk góor goo xam ne day baax waaye doom ji day sàggane loolu diine te loolu bari na lool léegi tey ñaata suñuy xale yu góor yi jigéen tey ñoo nekk ñu doyadeel diina waaye seen papa yeeg seen yaay nekk ñoo xam ne ñu baax lañ ba léegi sax am na xasta yu ñuy jël di ko jox yaay yi fekk doom yi ñoo ko waral mooy lan mooy sa yaay baaxut fekk yow rek yaa bon sa yaay moom baax na asana ngoog moom musique rek lay déglu moom mu ngi noon toog kii mooy asan ki lañ war a seetaan dundam mi ngi noonu lii rek mooy métier déglu musique grand place kër papaam nga ko dem mariage damier carte xaalis seetaan film yu bon tux cigarette lii rek mooy métier kon képp koo xam ne lii mooy sa métier jëlal leçon ci Assane Assane dan la doy leçon bu rëy bu mat sëkk gis nga mu ngi noonu di jël ay euh, portable caméra am di caméra ay film yu bon yi génn ci télé ak décodeur am gis nga ko de ñu ngi noonu toog lii mooy kër Pape Assane ci salle bi lii rek mooy métti xale yu góor yooyu gis nga booy disco bi ñëw na mu ne gars yi nam demee ñu ne ñu ngi fee Pape jàngoon ndeysaan julli na géeyam naafilaam jàng quraanam ba pare gis nga ko dem mu ngay tëdd pare na mu ngay tëdd gis yi ñoom seen mënin lii rek mooy seen métti gis nga kone kone araam aleyk comme li gars yi wax ay ñetti paa yu toog wër taabal kenn ki naa moroom ki doxal mu naan ko doxal te ñu ngi toog léegi-léegi ki ne ko billahi rey naa mu ne wallahi rey te kenn deew xoolal mu ne ko xaaral ma filmi mi nuy jot na ma jàpp benn télé bu garaaw gis nga de mi ngi noonu gis nga de xoolal mu ne ko filmel garaawul filmer ko rek gis nga lii mooy seen mécc mu ngi noonu gis nga de onze heures lañ commencé balan trois heures huit ñu ngi ni ci kër gi paa nelaw ba yeewu guddi trois heures et huit mu ne wow gars ñoom ñu ngi ñu ngi ngoonaar ba léegi ndeysaan gis nga góor gu baax borom kër nii lay mel day toog bu doom yi tëdd moo xool doom yi ndax tës na ñoom déet waaye ñun da ngay ku ne léegi mun naa dootoo génn say doom fanaan àll léegi-léegi sax seen yaay moo leen ubbi fenêtre bi ñu jaar ci dem baali paa bi ñëw na ci saal bi asalaamaaleykum gars yi waaleykum salaam mu ne Assane Assane gis nga ko de Assane Assane nga sës ci moom mais du ko dégg lu tax daa dugal écouteur yi ci noppam bi di déglu musique Assane mu ngi toog de wan ko ginnaaw xarit yi tiit na ñu ne ko Assane wuyu sa pap mu ne ah ñu ne sa pap mu geesoo jàkkaloo pap mu ne ko dindi li sa nopp nga mën maa dégg sama wax mu dindi ko mu acca guddi na dem leen tëddi acca génn leen tëddi jogal nga julli nga tëdd ñu baax na Assane ba suba yàlla Assane yàlla Assane Assane ba suba seere ñëpp jog nañ tëddi kon ñii lii mooy seen mécc duñ nelaw de amul nelaw vee ba bët set rek mu ne ko Assane nga jàpp nga julli nga tëdd xoolal yaa ngi bàyyi tele bi ak décodeur muy tàkk bu heure bi yàq courant rek gis nga papa ndeysaan fay télé bi ñu suñuy doom duñ fay seen i télé suñ télé yi xooluñ li xale yi seetaan xooluñ li yaar yi seetaan lu bon ak lépp ñu ngi seetaan rek maase la rek Assane au lieu mu dem jàpp julli mu ñëwaat monte écouteur moom di déglu musique am ñu kon lii rek muy métti asan comme suñ xale yu góor yi rek mbokk yi musique baaxul lislaam da koo ter ab jullit du déglu bi kuy déglu musique ba nga dee te boo ko day àllaaxir dañuy xellin ba bu tànk ci say nopp gis nga lii rek muy métti asan ànd ak musique moom ba quatre heures du matin gis nga dégg nodd ci jàkk ji au lieu Assane arrêté musique am dem jàpp julli ji fajar <laughs> déedéet comme ñun rek ñun weeru koor la ñuy julli ba weeru koor mu taxaw déglu ba mu neex ko mu dugalaat écouteur ci nopp yi ñu gën a duggaat mu jaaxaan nag continuer moom su noppoon sax déglu nodd yi waaye mu ngoog nga de te yonent bi sallallahu tere na koo xam ne jege na jàkk du julli ji jàkk waaye tere na ku dégg nodd tëdd daal tëdd kon yéen jigéen ñi am borom kër bu ngeen dégg te noddu jóg leen ngeen jàpp ku war a sangu nga sangu ne julli ji ndax julli loolu lañ koy xam léegi nag asan nelaw nga koy ñëwal de au lieu mu dem julli ji moom fii la tëddee far nelaw xam nga wax dëgg yàlla guddi ku ko nelawut danga nga nelaw ah daa mel ni am na gan guy ñëw nag ci asan gan guy yéeme gan gi nga xam ne ku nekk dan la gane ji te bu ñëwee moom bëggul lekk bëggul naan bëggul ndox bëggul xaalis bëggul dara lan la jël lan la soxla si jël ruuhu gi yóbbul ko borom ruuhu gi muy malakal mawti mu ngi koy gane si di ko de quatre heures demi jot na wala nga ne trois heures et demi yu tegal ay seconde Xasan fi mu tëdd di nelaw rek malakal mawti jaar foofu di ko jël si ngoog am nga gan du bett kenn nag woo na ko benn allahu na ko Xasan ñaar xasaan ñett mu yeewu rek yem ci jëmm ji taxaw ci bunt bi kon ne bërit rek yem ci moom kon am nga gan kii amul mag amul xale ku nekk danañ ko yónni ci yow mu jël fi kii nag baaxul moo tax mu jaari safara jël fa matériel am di ñëw ñu déglu ko allahu na ko waxal ne waxal ne malakal mawti mi nga xam ne moom lañ dénk ruuxu nit ñeeg rabi àlleeg bàyyi may dan la jël si te bu la jël see jël ruu gi delloo ko borom ruu gi asan nag tey mu ngi ci problème mbokk yi ndax dee moo koy néew si ko dem mu ngi naan ko malakal mawti malakal mawti mawt mawt malakal mawti mooy malaka miy rey doomu aadama yi mu sukuraat mbokk yi lii mooy sukuraat sukuraat mooy la lépp loo doon def ci àdduna yàlla dala ko woon balaa ngay dee mu commencé fi mu nekkee xale fi nekkee xale bu góor bi muy tuux cigarette bi muy football bi muy nokkatu xale yi mos naa sax sama papa mu daanu ak bi mu nekk nekk safoor ak muy lu nekk da koy gisaat bala muy faatu lii mooy sukuraat mbokk yi moo tax jar nañu préparé muy dee li nga def yëpp danga ko gis balaa ngay dee ak lu mu gaaw gaaw malaaka bi dugg si ne ci saal bi nag fekk ko ci kaw canapé mu tëdd nee na ku dund rek da nga mos dee ñu delloo la ci yàlla sa heure bu jotee ba ñëw doo avancer seconde waaye doo retard seconde su ko de loolu la koy reyee mooy weñ googu am ceenu safara ñu jëlee ko safara moom lay reyee asan mu ngi koy samp ci kawam ruu xëcc ko xam nga ruu ko bon nii la ko yàlla malaaka yi jëlee mu ngi koy samp ci kawam li mooy malakal mawti nii nga xam ne kuddee moo la rey mbokk yi ni ko déedéet déedéet su ma xëccee sa ruu ba mu ñëw ci sa baat bi sa mbokk yi naan kan moo ñuy moccal mu wér yow ne tey doo wér da nga dellu àllaaxira allahu akbar yëg ñoom duñ yëg la mooy sa tànk yëkkati dal ci morom ki dootul mën a yëngatu ma jël sa ruux gi delloo la ci sa borom asan tey mu ngi sukuraat mbokk lii mooy sukuraat ku bon nii lay sukuraatee mbokk day tàng day mit ngoog naka sukuraatu dee ñëw na ci dëkk lii nga sàgganee woon ñëw na ci yow asan dee na mbokk yi mbokk yi dee mu ngi nii dee benn jëmm la boo xam ne képp ku mu daal mbokk yi du baax kon nañu góor góorlu defar suñu àdduna balaa ñu dee di ñëwal malaaka mi amul xarit amul ndey amul doom amul baay ku mu soxla rek dan la yóbbu comme jël na ki yàlla yónni woon mbokk yi du fi bakken kon ñun ñëpp nañu préparé mbokk yi lii mooy dee léegi nag ku baax ruum bu jógee day dem asamaan ku bon nag ruum bu jógee du mën a dem kon nañu ànd ak yéen ñu seetaan asan ruu gi nu muy def nee na ruu gi génnal ci jëmmu asan ji tey laa lay fay mbugal mu doyadi ca la nga daan wax ci yàlla te du dëgg te alquran buñ la waxaan nga naan nit ñi dañuy wax rek yàlla waxut kenn dara tey rek ngay ñam mbugal bu métti lii mooy ruu asan mbokk mu ngi noonu mënta yéeg malaaka mi ko rey soon mu ngi noonu di génn yóbbaat matériel am te safara la ko jëlee woon buy rey ku bon noonu la koy reyee waaye buy rey ku baax beneen xaal la koy reyee fajar jot na papi Assane yeewu na di yeesi Assane pour mu julli li nga xam ne borom kër gu nekk loolu la waroon def di yee ñu botam ñu julli comme ni ko yàlla waxee ci al alquran qu anfusakum wa ahlikum naar dégg nga mu ngi koy woo ne ko jogal julli jogal julli Assane Eh, eh, nit ñaa ngi nelaw di nit ñaa ngi nodd yoo ngay nelaw jogal asan jogal si nga ruu gi mu ngi noonu soo waxee kenn du ko dégg waaye moom day dégg waxu gaay yëpp ndax lii mooy ruuxu mbokk yi xasan papa ji yëgul ba laal asan asan dëkk génn naa àdduna mu ngoog asan mbokk papa ji am na lu ko métti ndax ni asan deexee neexul ko papa ji commencé jooy mbokk yi waaw parce gi de duqi na ay bëtam xam ne tey du baax le mbokk yi ruu ku bon nii lay mel du yéeg benn yoon ci kaw asamaan loolu la yàlla waxoon naan laa tufattax lahum abwaabu sama wala yadxuluuna aljanna xataa yalijal jamal fi samil xiyaat kenn du ko ubbil bunti asamaan du yéeg te moom du dugg aljana mukk lu dul moo jaar ci bën bënu puso ba génn loolooy tax ku bon dugg aljana kon moom du dugg papa jaa ngi noonu di jooy mbokk gis ngeen ko de lii daw na yaram asan moom bokk tut ruu gi ñëw di wax ak papa ji mais papa du ko dégg léegi asan dem na wax ko sangakat bi ñanal ko càngaay yóbbul ko ñu ngi xotti asan càngaay mbokk càngaayu asan a ngoog gis ngeen ko de kii mooy sangakat bi noo ngi gasal asan mbokk yi lii mooy bàmmeel fii mooy kër gi nga xam ne mooy këru wéetaange mooy kër gu xat gi mooy kër gi nga xam ne ay sax rekk lay ganale mbokk yi fii mooy kër gu bees gi nga xam ne ku fi dugg lu la fi màtt yaa ko fi yóbbu nañu préparé bàmmeel mbokk yi fii mooy titre foncier kër yi ay font lañ mbokk yi nañu préparé xam ne bés bii Assane ñëw tey ñun ñëpp kenn ku ne am nga ko dañ la fa suul bàyyi la fa yow dong cundum kon nañ ànd ak yenn ci Assane ñu ngi koy gasal bàmmeelam mu ngi noonu àll baa ngoog xar yi yaa ngi ko yenu jëmale ko ca morgo ba ngi jooy mbokk yi fii jooy du fi jëriñ yal na la yàlla yërëm yow jaama yàlla bi yarhamakallah ya abdallah sangakat bi ñëw na mu ne yégale leen ma ko ci kaw morgo bi gaa yi jàpp gis nga nanguñ ko laal sax ci seen xarit yi ci benn basang lañ ko teg dañ des yégal ko ci kaw morgo bi fi ñuy sangee néew yi tëll ko ci kaw ndeysaan addunaa ngi nii de moo tax wax ne du woo dara nga weddi ko wallaay du woo dara ñëpp ngi taxaw tey dellu ci yàlla laa ilaha illallah ngoog ruu gaa ngi noonu taxaw tiim ko gaa yi ko indoon ñu ngay génn te ko bàyyi ci morgo beeg sangakat bi ko def fii mooy place bi nga xam ne fii la doomu aadama di mujj tëdd ci kaw suuf su fi bàyyee ko buntu jàkk lay tëdd dem ci bàmmeel ya mu ngi nii ruu gi mooy jooy noonu di yëngal loxo yi xarit yaa ngi noonu di jooy ndeysaan seen ko de am nañu leen métti fanaan xale yan dog moom ba ngoon yàlla jël ko ndeysaan gis nga mu ngi noonu de ngi naan laa hawla wala quwa illa billah amul pexe amul kattan ku dul yàlla ruu gi mu ngi leen topp ruu gaa ngi leen topp naan bu leen dem bu leen ma bàyyi ci morgo bi xarit yaa ngi jooy ak yaay ak papa ji ruu asan mu ngi noonu moom day dégg seen wax waaye moom waxam kenn du ko dégg da di gis mais moom kenn du ko gis ñu ngi koy wàccal kaamil comme ñun rek ku dee ñu wàccal ko kaamil seetuñ ndax moom mérito na ko wala mérito wut ko jàngkati kaamil dañoo yàkkanti sax nit dee laaj ab som lekk léeg-léeg sax duñ ko jàngee na mu waree kon ma est-ce que lii moo taxoon alquran wàcc déedéet mbokk yi alquran daa wàccoon tunzira man kaana hayyan ngir ñu waar ñi nga xam ne dañuy dund ku dee rek alquran ja wàccoon ak yow te ruu as foofu rek saytaane bi àndoon nag asan di ko neexal di wër ak moom di ko yàqal di ko def loolu bon moo koy woo léegi génnee ko ci nit ñi ndax asan bokkut ñu baax ñi seytaane bi ñëw mu jëbër naa kër ga taxaw léegi ngeen dégg mu woo ko ko de koo xaritam la mu ngi tàggoon teg papa di ko jaale asan ñu ngi koy wàccal kaamil rek seytaane bi woo ko woo gi laa ilaha illa seytaane bi nee na ko ñëwal du bañ ni koy ruu gi tey day gis seytaane te mës ta mën a gis seytaane ndax la taxoon du gis seytaan te yàlla dindi na ko fa kasaf na anka xitaaka fa basaruka yawmal hadid dina ko kaay taal mooy ñëwal asan ñëwal ci man asana ko dégg wuy ji ñi toog duñ ko dégg asana ngi noonu di génn nit ñi di wuy ji seytaane bi suñ ko de seytaane bi mu ngi armé wu war a wax ak asan moo tax ku bañ a jaamu yàlla seytaane bii moo la jàpp ngoog mi ngi doon taxaw asan buugiti mu ree ko da ko man maay sa xarit man jaamu yàlla yàlla boole la ab seytaane mu nekk sa xarit man maay ki nga toppoon dipp ay at ba nga nekkee xale ba nga ba nga nekkee mag diggante jamono boobu yëpp maa ngi ànd ak yow ak place boo taxaw man nga doon àndal yow maay sa xarit maa daan mosal neexatu mooy yàlla ma nekk ci sa xol bi ak sa xel mi amoo kenn koo gëmoon ci àdduna ku dul man ku wax nga ne ko góob man nga xamoon ci say xarit maa daan ànd ak yow man seytaane amoon xarit bu baax sax far man nga toppoon bàyyi santaane yàlla yi sa dund yëpp mu ne kon di alkuna mu ree ko mu ne way man alkuna ay waay man perte na yaa asarata yaa asarati woonaa sama perte ana qarinuka alladi mu ne ko man maay kil doon moñal dala ñamal neexatu mooy yàlla booy déglu musique ma def ko mu neex ci yow nga mel ni yaa ngi aljana di bonde di fecc yow miskin nga tey amatoo dara mu ne ko at yooyu yëpp mën nga daan àndat nga yaakaar ne yow ab gor nga ab bondekat ga waaye tey ñàkk nga ñaari yoon dund nga perte ci àdduna àllaaxira nga dem dugg safara maa la daan topp di wax yow nga yaakaar yaay jàmbaar tey nag jeexal nga àdduna yaa ngi jëm àllaaxira tey la la yaa ngi koy gis sa bët ak say xawaasu xam sa yëg-yëgu juróom yëpp tey ñàkk nga ko yaa ngi may jàkkaarloog man la taxoon daanoo ma gis tey yàlla muri na ko yaa ngi may gis nooy def nag yàlla ma nga doon mooy man maay sa jëf ju bon ji nga doon àndat foo daw jëm tey fan nga daw ci man jëm tey munoo ma daw raw ma ca alquran ñëw nee na ko sa bët yi yàlla muri na ko yaa ngi may gis te mosoo maa gis da nga sàggane woon jaamu yàlla seytaane bi ne ko nag yow bés ni ki tey kenn gisut ku dul yow kenn du torox ku dul yow kenn du la dimbale fii léegi ñu ñëw sangee la ndox mu sedd ma andil la ndox mu tàng roose la sangara ndax loolu nga mérito. ma sangee la ndox mu tàng jër tax lool nga mérito tey ruu asan a ngi noonu ak jëmmu asan gis ngeen ñaar yëpp ñu ngi doon tend jëmm ji mooy la tëdd na la ruu gi mooy li toog nii mu ne ko jogal nga dellu ci biir jëmm ji nga fekkee sanga bi ma sangee la ndox mu tàng mbokki nit bu faatoo buñ koy sanga da koy yëg ndax ruu gi day del saat ci moom day dégg ñu koy sang ñëpp ñu koy sang ak ñëpp kon mbokk yi mu ngi doon tëdd gis ngeen ko de bu doon jigéen ñi ne ko lu mu lànk di meesu di émaay yu di xeesal boo ñëwee fii tey ñi firi say mees tay ñu xoos say émaay waaye xeesal bi cee ndees xeesal bi kenn du la ñuulal loolu ngay teewee ci kanam ji nga gi mu ngi noonu xool leen ko mi ngi noonu duggaan na ci jëmm ji daa dugg ba pare rek sangakat bi ñëw indi ndoxam mu set futti commencé di sang seytaane bi moom indi ndoxam mu tàng di sotti si ngeen ko di ko ree <laughs> ne ko ñamal lii nga mérito da ngaa torox waa ji wal ba tey sotti ndox mu sedd seytaane turuk ab seenu safara sotti moom ndox mu tànk xool leen fii rek mbokk yi nit du dara mbokk yi allahu yàlla jéggal gis nga moom mu dóor lii mooy métti ku bon nii lañ koy def mbokk yi te jaamu yàlla rek moo wóor sotti na beneen côté bi seytaane dóor aw oh. laa <laughs> gis nga de lii mooy ku bon di sotti ndox mu tàng waa ji walbati mu sotti ndox mu tàng moom gis ko de ne ko ñamal lii nga mérito pare nañ ko mbokk yi sang bi noo ngi koy sang càngaay laa ngoog mbokk yi weex tàll pare kaa lay doon wala malikaan tey doo sol borode doo sol gani laa doon sol dara malikaan wala pérékaan lii mooy sa yére bi mucc ci sa yére yi xam ngeen ne pérékaan yàggut moo tax bu ñu la suulee du yàgg rek mu nëb waaye nag comme dañoo bëgg gis Assane moo tax muuragul kanam gi da koo sàngano rek woo gars yi ne kaa leen xool Assane xarit yi dugg si ak papa ji fii mooy dernier gis bi ñuy gis Assane jëmmam ndeysaan ji jooy mbokk papa jàngoog di jooy mbokk léegi nag ñu ngi yóbbu Assane mbokk yi ci armeel yi pour suuli ko de tey lii la nit di xaar doomu ndey film bii de bokk de yenn film yi ñuy seetaan télé nañu delloo suñu xel ci yàlla ñu tuub jaamu yàlla ñu ragal yàlla préparé bis ñuy jëlee ci biir kër yi jaar lañu ca morgue ba jaar lañu ca jàkk ja yenn ñu romb grand place yi romb mbedd yi romb keske pied mi daan nga jënd pied mi te daganut daan nga naan sàngara daganut mbokk yooyu yëpp moytu gis nga sàngara ak musique l'islam da ko tere ab julit ak sol lu gàtt ak lu seere ak lu yaraax mees emaay xeesal ku def na ko dindi ab julit bu jigéen day ni du bu jigéen ab julit bu góor day ni du julit bu góor bañ a takk ay seen ak góoru takk ay seen ay jaaru ay lam bën na noppam nas ci mbokki yi def na ko dindi ab góoru julit day nekk julit bu góor mu bañ a nekk koo xam ne euh, day nekk rek comme niñ ko xamee nekk benn rappeur wala benn bandi waaye itam mu bañ a nekk koo xam ne day meesu di émaayu di kere place ba denc léegi ñoom ñu ngi ko yóbbu di sikkar mbokk di sikkar lii de moom suñu réew la koy sikkaral naan ki fi sax ki fi dëkk ko koy yàlla suñ ko de xam nga ne bu ñu li dal Assane ginnaaw ba lañ ko yóbbu kon duñ ko defal lii gaa ngi nii ànd ak ñoom tiit moom day jooy rek xam ne du baax la léegi ndekki Assane bi ñu koy yóbbu benn xaj moo yëg ci kawam tëdd ci kawam xaj baa ngi noonu mbokk yi xaj bii mooy yëg sa kaw tëdd wala mbaam wala golo mooy ay gunge ba sa biir bàmmeel xaj baa ngoog mbokk yi kii jëfi Assane ju bon ji mu doon jëf moo soppeeku benn jëmm bu toll nii di ab xaj yëg ci kawam xoolal ñu ko yenu mu ngi diis gann ci ñoom te yëguñ na xaj lañ yenu ak nit ñoom ñu ngay sikkar di dem wàccal nañ ko kaamil jullee nañ ko sanga nañ ko ñoo ngi ni de ko sikkaral di dem te jëriñu ko dara mbokk yi jëf rek moo am solo loolu nit jëf loolu lay fekk elo moo tax léegi-léegi ñu naan jigéen jaamu yàlla mu naan yàlla baax na yàlla soxorul yàlla rek yàlla soxorul walaay soxorul àllaaxira yàlla xol lay fay xol bii jaamu yàlla lay fay waaye du ab bandi boo xam ne du jaamu yàlla mbokk yi euh, bu mbokk yi dee nañ ko préparé ruu gaa ngi noonu naan ziino lillah ay bu leen ma yóbbu waay ragal leen yàlla bu leen ma yóbbu ngeen fu ngeen ma jëmee bu leen ma yóbbu gis nga ci bàmmeel yi bu leen ma yóbbu ali bu ma Ousmane ay xaritam nga ruugi de ndax xam na ne bu demee bàmmeeli du baax ngeen ko de delloo ji leen ma ci kër gi ku bon buñ ko yóbbu dinaa wayli wayli ilaa ayna tuqaddimuuni alkunaa fu ngeen ma jëmee azan bu leen ma yóbbu ci bàmmeel yi wala xaj baa ngi noonu jëfam bu leen ma yóbbu delloo leen ma delloo ci kër gi bu leen ma yóbbu ali ali delloo ma ci kër gi bu leen ma yóbbu si ngeen ko de du bëgg a dem ndax lim def baaxut xam ngeen ne ku def lu bon bañ jàpp la war laa yóbbu doo bëgg a dem mbokk yi nañu moytu film yi bon yi ñuy seetaan mbokk yi jigéen yi nañu ragal yàlla jigéen day muur yaramam muuraay mbokk yi du aada naar muuraay santaane yàlla la yàlla ko wax ci alquranul karim kon seytaane bi ñëwaat na ku muuru ci ñun rek ñu la yow danga nekk ibaadoog aada naar déedéet mbokk yi muuraay santaane yàlla la yàlla wax na ci alquran yaa ayuha nabi qul wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihinna daalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna wa kaana allaahu gafuuran rahiim yow Muhammad waxal say soxna ak say yu jigéen ak bépp jigéen bu gëm yàlla ne ko na muur yaramam kon mbokk yi muuraayu jigéen farata la comme ni julli nekkee farata ci moom moo xam mag la wala xale dem masoor na rek daa war a muuru ñu bàyyi li ñuy wax tey ku sa doom muuru nga ne da nga tas àdduna bi da nga tas koñ bi sa doom ji nga gën a bëgg mooy kii entre xale yu góor yi ku nga gën a bëgg sa doom bu góor bi nga gën a bëgg mooy rapport bi wala simbakat bi nga xam ne meesu emaayu la def méccim dangay gis sa góor guy xeesal mbokk yi kon nañu xam ne loolu du mbiru góor du mbiru jigéen lislaam da koo tere ab julit day nekk ni xam ne ab julit la bu fekkee ab yéefar la nag mu nekk ab yéefar kon nañu ànd ak yéen ci asan seytaane bi ñëwaat na ci moom ba gut ko jege bàmmeel rek mu ñëw wax ak moom ni ko kanaa waxuma la woon ne <laughs> du ko bàyyi de xanaa waxuma loon sa bët yaa ngi may xool tey la taxoon dooma gis dindi nañ ko yaa ngi gis lépp tey ca dëgg-dëgg nga koy gis waaye ñi la yenu ay miskin lañ ñoom ñu ngi nelaw de waaye bésu ngi ñëw ñu yeewu comme yow ni nga yeewu da nga doon nelaw yeewu nga tey tey de boo dekkoon dellu ci àdduna danga nga jaamu yàlla xaj bale nag ci sa kaw mooy sa jëf ju bon ji nga doon jëf ci kaw àdduna musique baak xale yu jigéen nga doon entre ak yëpp moo nekk xaj boobu nekk sa kaw lii sa ñaari loxo yee ko defoon sa ñaari loxo yee defoon bàkkaar bii rek alquran ñëw ne bés bi nit di gis ñaari loxom lam defoon ci ay bàkkaar yéefari di jooy naan yàlla na mën a yàlla def suuf di ko de mu ngi naan ak a neexoon ma nekk tey suuf duma ma dugg safara yàlla def ma suuf balaa may àgg ci bàmmeel yi la gis nga def bàmmeel baa mbokk yi bàmmeel baa ngoog bàmmeel mbokk yi xaj bi nekkoon ci kaw moo koy jiitu ci biir bàmmeel bi gis ngeen ko jiitu na ko ci pax mi da ko xaar lii ngay dégg ñu nit ku ne jëfam moog moo may ànd ci pax yént bi ne nit bu faatoo ñett koy gunge alal ji du génn kër gi ca kër gi lay yem ne ko man nag dew ma ca bàmmeele fii laa yem ay mbokkam a koy yóbbu suñ demee buntu bàmmeele lañ yem dootuñ dugg ci biir waaye jëfam ju baax wala ju bon mooy ànd ak moom ci biir pax mi comme asan mii moom defu doon lu baax baaxu doon defu doon jëf ju baax tey xaj bii mooy jëfam ju bon ji moo koy xaar ci biir bàmmeel bi buñ ko dugalee bàmmeel bi ji ngeen ko ni mel di tàkk safara xaj bi war ci koom kon mbokk ku bon na xaar lii xanaa mu tuub rek balaa muy dee wa illaa lii moo koy xaar ci ñëw xaajilan aw aajilan fi nga ni bàmmeel bi tàkkee safara ñoom duñ ko gis kenn du ko gis lii kéemaanu yàlla la mbokk yi gaa yaa ngi sikkar ñoom yëguñ ci dara ñoom allahu akbar ne nañ sax fi te dootoo dee ak am nguur yàlla rek ko moom wallaay wax ngeen dëgg si nga de ruuhu gàngoog mu ne hé araam na ngeen suul ma bu leen ma suul xanaa nekk moon seen xarit bu leen ma suul papa Ahmad Ali bu leen ma suul ci suuf si ah, ko xoolal sa kanam gis nga pax mi mooy sa kër gi la doon xaar nga jëm si kër gi nga xam ne yàgg na lay xaar seen <laughs> yow rek la doon xaar ay saxa fi nekk ak lëndëm ak wéetaange fii nii fii mooy bàmmel mu ne ko nga ne la yàlla ne doomu aadama fu ñu ko reyee rek ñu suul ko seytaane bi ne ko mu ngoog ne ko fii sa yére yi ñu la solal fii lay xotteeku sa yaram bi fi lay tas sa tànk yeeg yeew beeg yëpp fii lay des fii ngay sax dootoo fi jógee fii boo baax le wut fii la leen dëtt ji fekk di leen naan nga ci naan ak ndox mu tàng meeg safara fii mooy bàmmeel dugal leen say xarit yi la indi nag ak say soppe léegi ñu dugal la ci suuf si ñoo lay suul ak sa papa buñ la suulee ñoo la fi romb yow kenn fi des yow dong nga fiy des fii lañ lay suul ah ndeysaan dugal nañ ko ci biir pax mi allahu akbar ndeysaan allahu akbar وتركتم ما yàlla ne na ko yow dong yaa ñëw laqad jitumuna furaada ñëw nga yow kenn dong yaa ñëw comme ba ma lay bind na nga juddoo yow kenn la taxoon nag jaamu xooma nga fuuy te yaa ngi ko bàyyi ci àdduna yow dong yaa ñëw ku dee rek yàlla wax la baat bi buñ la suulee bu ñu demee rek yàlla ne saabu wa tarakuuk wa fi turaabi dafa nuuk walaw sallu maaka ma nafauk walam yabqa maaka ila ana ana xayun la si laa amoot li ma nil mulkul yow ma gaaña la suul dem nañ kenn desu fi kuréel yow man nga bañ a jaamu tey kan mooy buur te ci biir suuf lañ la suul ñu ngay dem mbokk nañu préparé bés boobu gaa yaa ngi koy suul mu naan alkunaa ay man alkunaa gaa yi koy suul pare wuñ sax yàlla wan wan ko kéemaan fi ñuy suul rek bàmmeel bu tàkk safara allahu akbar laa ilaha illa ruu gi ne ñu seen ruu benn seenu safara amatul jàmm xëcc ko jëmale ko ci biir bàmmeel bi mu ne yàlla delloo ma rabbi irjooni rabbi irjooni allahu akbar yàlla delloo ma àdduna yàlla delloo ma àdduna xoolal bàmmeel bi muy tàkkee mbokk yi yàlla ne ko déedéet baat boobu yow da koy wax tey rek la fii la yem ne ko yow sa bàmmeel bii ngay tëdd ba yomal xiyam doo fi génn dellu jeex na bu ne noonu jaamu yàlla nga bañ mu ne yàlla boo ma delloo ma jaamu yàlla ma tuub yàlla ne ko jeex na dootoo dellu malaaka mi xëcc ko dugal ko ci biir safara si mu commencé di yuux mbokk yi xoolee li mbokk yi daw na yaram métti mbokk yi ku baax du mel nii ku mbon rek ba dee ci mbon moom la yàlla mbugalee nii tey mu ngi ci biir bàmmeel bi mbokk yi di yuuxu ruu gi mooy yuuxu jëmma jëmam suul nañ ko yàggan ruugi ci biir safara bi ci noonu lay nekk ba yomal qiyaam bu fekkoon itam ku baax la noonu lañ koy xiwalee aljana ba bés penc mi yàlla kon ñu dem incha allah. mbokk yi asan mii ku yàlla bëgg la gis nga de ndekki asan yëpp yàlla da ko dimbaloo mu koy gént. gis nga côté fi mu yeewoo daa yuuxu ba wóogmaan bi daanu mu daanu ci suuf si di yuuxu xam ngeen ni ku gént gént gu mel nii moo tëddaate doo nelaw mukk léegi nag mu ngi yuuxu ba set na mu ngi yuuxu naan yàlla delloo ma yàlla delloo ma ci àdduna ma jaamu yàlla yàlla delloo ma yàlla delloo ma soo ma delloo ma tuub ma jaamu yàlla foofu rek lay yeewu ah kon nañu déglu ndax dana tuubam déet ku yàlla bëgg ngi nii ndax bu ko yàlla bëggu doon du ko géntloo lii da koy bàyyi ci li mu nekkoon di caaxaan ba yàlla rey ko te mbokk yi ku dee ci caaxaan rek yàlla dañ la mbugal kon nañu tuub ndem géntuñ lii waaye gis nañ lu mel ni mbokki nañu tuub dellu ci yàlla ndax la mun ñu yërëm jéggal ñu ànd ak asan déglu ko fan lay mujj nañ ko de tiit tiitaangee ko jàpp mënta taxaw sax xam ngeen ku tiit moom du taxaw tànkee damm asan moom te papa ji dégg yuuxu yi daw génn ñëw ne ko asan lu xew asan lan la loo yuuxu ci guddi ci fajar gi rek mu song papa ji mu ko song papa di yuuxu mu ngoog naa papa dama gént te di papa gént gi di yuuxu ngeen ko de doon baaxul mbokk yi papa ji xam nga lu mu asan demal jàpp set julli ñaar rakk nga tuub ci yàlla yàlla dalaa bëgg balaa ngaa dee ci bàkkaar asan boolewut ci wax dem jàpp waaye mënta taxaw mbokk yi tànk yi damm nañ lu tax ndax tiitaange mbokk yi rek doo dox bii de dana dégg de mi ngi noonu toog te pourtant asan jàngoon na daa kàccoor rek xoolal mu ngi noonu di kabar tey de loxo yam doon joxe jigéen ñi loxo ak di cëpp cëpp tey de bana ko góor du jox jigéen loxo xanaa muy jabaram wala yaayam tey mu ngi ñu di julli mënta taxaw di nga ko ne mu ngay tuub di ñaan ci yàlla di jéggalu di jéggalu di jéggalu yàlla di jéggalu yàlla di tuub ab jullit day tuub mu ne yàlla li ma gént yàlla bul ma ci rey yàlla bu ma ci dugg safara bu tàng bi ma gént yàlla del nga ma ci musal pour yàlla musal la ci tuuba rek moo gën a gaaw mu su jootal yàlla su joot bii mbokk yi dana wuteeg suñu su yi su jootal na yàlla léegi nag nee na tumaranke woon naa ci àdduna allahu akbar su mu ne ba may dee amoon naa njàqare loolu lay xalaat léegi gis fi muy sukuraat loolu lay xalaat mu xalaat mu ne bàmmeel bañ ma fa dugalee man dong nga fa nekkoon kenn wettiliwut ma ci ndeysaan wax na dëgg bañ ma tegee ci tàdda ga dama yóbbu ca morgo ba maa ngi amoon njàqare man dong kenn yëgut kenn bokkut kon yàlla maa ngi la ñaan nga jéggal ma samay bàkkaar balaa may dee bañ ma yenoo itam xaj baa ngi woon sama kaw man maa yëg diisaay bi ñama yenoon sax yëguñ lu yenu su loolu lay xalaat noonu ci su jotee mu ne yàlla suturaal ma ci àdduna ak àllaaxira gis ngeen ko de te nga yërëm ma ndeysaan nga yërëm ma ca siraat mu ne ba ma dee ña ma doon walbati samay xarit ñoo ma doon walbati samay loxo samay tànk ñoo ko doon yëngal mënuma ko yëngal mu ne ñu teg ma ca kaw sangeekaay ba dama sang kama doon walbatiku nag bu ma tëddee mooy walbati dama sotti mooy sama dëkkandoo bu baax bi mbokk yi fii jar na xelaat nañ xaritoog nit ñi nañ jubag nit ñi ne bëgg ñu kenn xamut ñun kan boo dee kan moo lay sang kon jarul mbonde jarul mer ki nga mere mën naam boo dee moo lay sang ki nga luyee sa kër di ko xatal mën naam ëllëg mbokk yi bis boo dee moom mooy njëkk ci yow kon kooku dem nañ ci bàyyi xel am kër luyee ko ña nga ca kër ga ay nit lañ comme yow na góor lu baax ak ñoom jubóog ñoom dëkkandoo yi jubóol ak ñoom imaamu jàkk ji na la xam jàkk ji na la xam del julli balañ lay jullee del sàng sa yaram bala lay sàng nekkal ci kanam nit ñi bala ëllëg ngay wéet ak nit ñi yow dong mbokk yi kenn xamul boo dee ku lay sang ak ku lay toppatoo kon nañu laa biir jullit noonu lay mel ñu ànd ak yéen lii yëpp mu ngi koy xalaat gis nga ay xaritam ñoo ko yéen woon de kon xamu doon ne bu dee xarit ñoo ko yéen tey gis nga xarit yaa ngi noonu yéen ko di ko yóbbu mbokk yi sujjóot bi yàgg na allahu akbar nag duñ julli la may koor ba koor mbokk yi xanaa ñu boloke waxtu julli doo julli mukk da ngay dajale waxtu julli ba benn heure nga ne da ngay fay yóbbu déedéet waxtu julli inna salaata kaana alal mu'minina kitaaban mawquuta julli daa am heure bu heure ba jotee jógal joxe ko def ko ca mbooloo ma moo gën a moo gën a baax wala xanaa nga nekk jigéen boo jigéen moom sa néegi ëpp tiyaaba waaye bul góor moom bul jullee mukk fulul jàkk ja teel la dem jullil bul tarde juma te sangu di sol yére yi set ab jullit bu jigéen noonu lay mel itam bu ñu yóbbu nit ku dee ter nañu ñay yóbbu ñay gàddu tàdd ga ñu takk ay seen wala ñu takk ay lam ah. loolu lislaam da ko tere wax xàqataay di utaal portable loolu lislaam da koy tere gis nga mu ci bàmmil di siyaare si bàmmil am na tegg ni ñuy siyaare bàmmil soo ñëwee nga nuyoo nuyoo lislaam ne asalaamaaleykum diyaara qawmul muminin wal muminat antum ala al haq wa nahnu ala al batil insha allah sa ulayqukum yaxfirullahu li mutaqaddimina minkum wa mutaaxirin nañ ko jàng mbokk yi du dem ci bàmmil yi rëqulle bàmmeel boo fa demee am na loo war a def ñu bañ a toog ci bàmmeel yi bu ñuy suul lislaam tere na bu ñuy suul néew ñu toog ci bàmmeel yi ay faatee falaqi yi baax na lool waaye du pour bàmmeel bàmmeel bu ñu fa dugalee nit la yonent bi jàngale yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na yàlla dëgëral làmmiñam boo ko laa yi laaj mën a tontu loolu moom la yonent bi daan def ci biir bàmmeel yi te moo ñëppoon xam-xam ci moom la alxuraan wàccoon tey mu ngi nii siyaare si bàmmeel yi nañu xool ab julit day dem ca bàmmeel yi di ko siyaare ndax di fàttaliku dee bàmmeel yi mooy cité cee leeral nekk ñëpp tolloo moo xam buur nga wala góor nga wala jigéen nga mag nga wala ndaw nga ci suuf nga tëdd suufa a sàng kenn na doxul sa diggante ak suuf si sëriñ mënu fa dara taalib mënu fa dara xarit mënu fa dara jëkkër mënu fa dara bàyyi mënu fa dara mbokk yi bàmmeel moo ñuy xaar nañ ci moytu nag nañu góorgóorlu te asana ngi ci bàmmeel yi lii itam dañ ko tere ci ay bàmmeel tabaxul mbokk yi lii lu lislaam ku ko wéet rek demal mag nga xool baqiya madina baqiya boo fa nemee armeel bañ suul lenn ci saaba yi kenn du ko tabax bàmmeel yi xoolal boo ñëwee bàmmeel ñoo gën rafet léegi yi lu ne la ñuy def ci bàmmeel ab jullit duñ ko tabax du tabax bàmmeelam yonent bi da koo tere ab jullit du toog ci bàmmeel ab jullit du ñaan jàkkaloog bàmmeel di ñaan borom bàmmeel déedéet borom bàmmeel da nga ko war a ñaanal yàlla yërëm ko waaye doo ko wax may ma koo xam ne ñàkk na ndeyam ñàkk baayam ñàkk jabaram ñàkk doomam ñàkk këram ñàkk yërëm kooku lu mu am lu mu lay may amul dara mbokk yi nañu delloo suñu xel ci àdduna jaamu yàlla sellal ko ku dee te ci kanam yàlla yàlla du la jéggal njëkk wax mooy ñun ñëpp nañu jàng suñ diine gis asan mii jàngoon na de daa bandi rek di wat sëkkimam daa naqal yi jigéen ñi di bonde déglu musique leen jox loxo tey nañu xool fan lay mujj mi ngi nii di jooy ñoo ci bàmmeel fañ géntoon ba mu dee ñu suul ko mu ñëw fa gis ngeen ko fii la doon gént ñu suuloon ko ak fa mu toog a naan ak a neexoon ma nekk suuf bu fa ñëwee da ngay gis mu jël suuf si di ko jéeri kon géntam gi yàlla da koo bëgg moo tax mu def ko lii nag ba léegi mu ngi am mbokk yi man mii de wax ak benn xale ñëw na ci man xale bu jigéen na ma oustaz damaa gént ma dee ñu ngi ma dugal safara ma ne ko tuubal mu ne waa danaa tuub ba léegi nag tuubagul kon gis nga ndeysaan léegi-léeg nga gént gént bu garaaw dem ci sëriñ tariyaax mu ne la saraxel nangam déedéet sëriñu tariyaax nañ ko moytu yonent bi ne na ko dem ci sëriñu tariyaax mu petta wala nan la nangam soo ko gëmee weddi nga lañ wàccoon ci man Muhammad soo ko gëmul ñeent fukki fan boo jullee kenn du ko nangu kon mbokk yi ñoo ñu ne leen moytu bu baax xamuñ buñ xamoon duñ nekk fa ñu nekk luyee pant rek amuñ dara lu may benn basang benn ndes yore ay we yax yu dee naan kalan-kalan yooyu benn njëriñ amul kon mbokk yi dañ leen nax rek lekk sa xaalis bi wallahi dañ leen nax nekk lekk sa xaalis kon asan a ngi nii tey ci bàmmeel xam ne dëgg mooy dëgg mu ngi nii di xool asan mii tey kenn dootu ko mën a te nax seytaane ñàkk na ci moom ndax yàlla war na ko ni ko seytaane def ëllëg ak fa mu mujjee ak moom fii la jonkonoon naan ak a ma nekk suuf jonkoon na fa tey gis nga nii ñëwaat na ci kër gi xëcc benn kaamil gis nga ko de suuf sàngoog fii la doon wax naan ak a ma nekk suuf gis nga ko de géntam gi daa leer nañ ne mbokk yi mu xayaat di toppaat jéego yi gis nga ko de fii la doon waxee naan yàlla it ni kuntu turaaba ak a neexoon tey ma nekk suuf bu du ma dugg safara ndax balaa nga ko wax rek nga jàkkaloo bàmmeel ak safara tàngaayam ak jiit yeeg jaan yi nekk ci biir nañu moytu mbokk yi Assane a ngi di jàngal Quran nañ ko xool kon fii mbokk yi fii la Assane di tuubee tuub bu sell bàyyi caaxaan bàyyi mooy yàlla bàyyi déglu musique wóog maan moom yàqu na bokk bokkatu te ñun balaa ñoo kontaan nga am doom sax am ngénte di musique kalang-kalang ngi tànqal waa koñ bi sa yoon mbokk yi ko am jabar musical ko am doom musical ko yow sante yàlla doom teraanga yàlla bu la ko joxee taralal yàlla satal yàlla gërëm ko waaye bul tànt musique ne yàlla lii moom a neex jigéen ak góor jaxasoo fecc lislaam tere ko xoolal mu ubbi kaamil bi la gën a doy waar mbokk yi xooleen aaya bi mu indi xooleen aaya boobu mu indi su ma yatuuba allahu min baadi zalika ala man yasha wallahu gafurun rahim fi nga ko de ba mu ubbee rek mu ngi yem ci aaya bi fii borom di wax naan su ma yatuuba allahu yàlla dana leen jéggal min baadi zalika gannaaw ba ñu tuubee ala man yasha ca bàkkaar ya neex yàlla wallahu yàlla mu ngi tudd al gafuur ar rahim inamal mushrikuuna najis falaa yaqrabul masjid al haram gis nga aaya boobu la jël moom la dajjel ci kaamilu yàlla bi mbokk yi kii tuubam yàlla nangul na ko mu tax nañu góorgóorlu lii mooy faalul xasan mooy gaaf gu rafet lii gaaf la mbokk yi ubbi rek yem ci benn aaya wane yàlla ne jéggal naa sa bàkkan moo tax day jooy xam na yàlla nangul na ko mbokk yi xasana ngoog kon ñu ngi ko doon defee fii ci ñaari place lañ ko commencé yàlla nañu yàlla dimbali ñu mottali Euh, place bu Seex Ba ñu ngi ñëwaat fii ci parcelle bi lañ ko mottalee ci néeg Mbàkke Mbay moom itam mu nekk koo xam ne moo ngi fii ci marché bi ci cinéma bu parcelle bi fa la nekk di réparer moom itam ay matériel yoo xam ne am nañ problème lu mel ni caméra lu mel ni vidéo lu mel ni télé yooyu yëpp mu ngi foofu moo ñu defal montage bi yombalal ñu ko laaj ñu ci dërëm kon nañu góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ku soxla numéro incha allah bu jokkoo ak man mii doon waxte maa ko joxoon ni maa waxoon sama numéro ci commencement bi incha allahu dinañ ko jox numéro bi ñu góor góorgóorlu itam dimbali lislaam lii nii lislaam daa soxla kase bi bari ñu traduire ko yu mel nii waaye ñàkk mooy képp koo xam ne seetaan nga kase bi nga pare jàppale lislaam woo ma ci numéro bi 642 26 60 642 26 60 soo ma ci wooyee incha allah danga ma jot soo ma jotee dinañu waxtaan ak yow nga loo mën a dimbali lislaam lislaam xeebul lislaam yéemul kon lii mooy film bi nga xam ne ñu ngi doon jéem suñu kemtalaay kàttan di ko traduire pour ñi jàggul ñi déggul araab mën ci jëriñu seen mbokk Ousmane Diouf moo nekkoon fii ci rajo bi di wax ak yéen ak ñi nga xam ne ñoom la nekkat muy ñu baax yàlla yàlla def ci ñun dégg topp def ko ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu allahuma salli wa sallim ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam asalaamu aleykum وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين